Cheikh Babacar di la nuyuwaat beneen yoon di la gërëmaat ci question bu am solo boobu nga wax nga xamante ne sax daanaka dafay mel ni ñu bari si ñun xaw ma ndax dañ koy fàtte wala dañ koy fàtte fàttelu waaye bés la bu am solo ndax bu doonu ton doonutoon Taïba na du am mu ngi mel ni Cheikh Ibrahim biñ ko laajee diggante laylatul qadri ak laylatul mawlid yi ban moo ci gën bàyyi mu ne bu fekkee ci ñun la de laylatul mawlid moo gën laylatul qadri yaa ngi dégg walawla laylatul mawlidi maa nil naa laylatul qadri bu fekk woon laylatul mawlidi bu yonent bi juddul woon alxuraan du am yaa ngi dégg te laylatul qadri bi li mu amee ngëneel mooy alxuraan bi mu ciy wàcc ak malaaka yi te ñoom ñëpp yonent mooy seen sang donc ñoom liñ ci ñun liñ ci mën a déggee mooy ne bu wala wala tayba maa nil naal medina bu fekkoon tayba amul ak maanaam ki nga xamante ne moo génnee ci ba yaa ngi dégg parce que waykat bi dafay wax ne ba bihi Tayba ñasini tafuusu faxra li saakini saalumi aw li bilaadi sayni bàyyi mu ne ci Cheikh Ibrahim ci la ba Tayba ñaseeni amee pukkare ñeel képp koo xamante ne aj li saakini way dëkkee nga Siin wala Saalum képp ku dëkk Siin wala Saalum sa pukkare yaa ngi koy amee bi bàyyi ñis doonee Saalum Saalum ndax bàyyi bu doonoon beneen xeet ñun daanaka ñàkk nañ yaa ngi dëkk donc koo xamante ne juddoo na ci bërëb bu tell bu bu tedd boobu bërëb bu sell boobu nga xamante ne wax na ne bi tayba jituka ilahi taiban wa taliban wa xaadaan wa aiba bi munzilin mubarakin tundiruni wanfaa huna jami man qasadani ajri fuyuda li ilmi wal arzaq li zumrati wa xadiban axlaqi Baay dafa wax ne tayba ci laa ñëw yaa ngi dégg ànd ak tuub ànd toroxlu yaa ngi dégg ànd ak fooglu ngëneelu yàlla waaye wax bi ni mu ko teeralee moo am njëriñ ñeel ñun ñi nga xamante ñoo fay dem mooy lan wan fanxu na jami man xasadani képp ku fi ñëw rek na nga ko jëriñ yow nag ça dépend la nga bëgg na nga xam ne fi ngay dem lépp loo soxla am na fa ndax yow ki jox yàlla kooku daanaka amul lenn mu la bàyyil war na ci ñun bu bàyyi ñes ayee ñu fàttaliku lim ñu defal même bu fekkee am nga ngànt fàttaliku mu la defal rek boo ko fàttalikoo rek yaakaar naa mboolem ngànt yi di nga ko teggi ndax Baye daan na bëgg a dem Makka waaye feebar daf koy gaar waaye du tee day dem wax na ko yaquluuna laa taxruj li suqmin wa wa maghramin fa uzruka min chamsi zahirati awdahu fa qultu shifa suqmi lwuqufu bi baabihi an tibbi yugnini kaman dalla yajrahu Baye mu ne daan nañ ma xool di ma yërëm ñu ne ah Baye bul dem Medina ndax yow dangaa feebar Baye mu ne sama wér maa ngi koy jëlee fa qultu shifa suqmil wuquufu bi baabihi man sukk bi may sukk ci ronu yonent bi loolu moo may wéral yaa ngi dëkk donc am na ci beneen wax mu ngi wax ne euh, tabibi qaribun hal siqaamiya tasmau ndax yuqaabilu ni yowmil muqafal mushaffaau tabibi sama docteur xaribun jege na hal si xaami ya tasmaaw ndaxam yow suma feebar yaa ngi may dégg mooy na nga xam ne docteur bu ñëwee rek feebar day dem mooy ne ñun ñëpp dañoo feebar waaye li ñuy faj mooy dem ci bërëb yi nga xamante ne dañ ciy yokk ci ngëneel yokk ci tawxiit ndax boo fa demee dinga fa dégg loo xamante ni ci jaar jaar Cheikh Ibrahim wala lenn ci jaar jaaru ay asxaabaam nga xamante ne loolu boo ko jëlee nga jikko woo ko nga jëfee ko loolu dana la yokk ci zaahir donc ñu ngi koy tënk daal di wax ne tey bañ a seen tamit le 27 janvier la te yaakaar naa bii kenn warul am ngant dem ndax dégg naa ne samedi lay tombel donc euh, taalibe won nañ ñëw en masse ngir njukkal baay fàttaliku xéewal yi nga xamante ne yàlla may nañu ko mu jaar ci moom xul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu wa ayu fadlin akbaru min almaarifati billahi maa arafnaahu isan eh, war na ci ñun ñu dem foofu ngir delloo njukkal Cheikh Ibrahim ci lu ñu defal in yàlla may dégg ak topp kama qultu fi bidaayati aqaawili minni ilaykum alhamdulillah